seq naag moom waxtaan ñu teewlu ko. Cheikh Ayma Ousmane Diakité président conseil supérieur imaami Côte d'Ivoire nee na li mu jàppe woon murid yi soppeeku na ndax li mu gis. nous avons visité projet. wax dëgg fa yàlla li ñu gis fii ci Touba ci projet université bi yéem nañu. te mbégte mu rëy lañu ci am. di it coobare xalif général di murid ci alalu jullit yi. ci loo xam ne ni moo ko digle. ñun Côte d'Ivoire mënatuñoo yem rek ci yaakaar ci li jullit yi di sarxe ak mastata bi ngir taxawal suñuy projet. avec attribution. jumaay Touba jumaay Masaalikul Jinaan université Cheikhul Khadim jàpp na ni jullit yu bëri war nañoo xool ci modèle yooyu nag te di ko jëfandikoo. auparavant nous voyions. gis-gis bu sori lañ doon am ci murid yi euh, di am xel ñaar waaye léegi euh, lépp changé na ndax ñëw nañ ba yegg si gisal sunu bopp boo gisee euh, juma juma bu Touba gis Masaalikul Jinaan ay milliards lañ ci def te ngëm gi waral loolu moo tax mënatuñu am benn xel ñaar ci tarixa murid. vous looloo tax mu ni projet bi xalif général des Mourides am ca Yamoussoukro ca Côte d'Ivoire ñu fas fa yéene jàngale te mu dénk ko Serigne Modou Kara Mbacké mu Serigne Moustapha Bassirou wanati na leen aw yoon. le projet l'initiative de xalif. projet bii xalif général des Mourides yëkkati bëgg koo taxawal fii ci Côte d'Ivoire ñun de yéem nañu mosu fee am li ñu tàmmoon kay mooy dem di lijjanti ji ay financement di taqale pour tabaxal l'islam waaye nit jóg yëkkati alalam ne lii laa defal l'islam pour jàppale leen ko fii ci Côte am mbégte miñ ci am nag moom foo ko natt rek weesu na ko communauté mouride moom ci Côte d'Ivoire waxatuñu dara à part entière Cheikh Ayma Ousmane Diakité kuréel gi mu jiite lu ëpp juróom-ñetti junniy jumaa ngi ci ak lu ëpp ñaar fukki junniy imam